aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ni seetaan ci fii ci sunu site bi ni wax 24 actu te li suwaat nañ seen jataay bi ni wax taxaw seetlu te ji ñu fas yéene ànd ak yéen ginnaaw ñaanal xalifa général seriñ Mouride sëriñ Mouhamadul Muntaxa sun borom yàggal ko fi lool tu wéral ko di siyaare ak a ñaanal sëriñ Abdul Fatah Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Fadal yàlla yàggal ko fi te wéral di siyaare bu baax ak ñaanal sëriñ daam at mbàkke xalifa cheikh ibrahima ibnu xaadim rasool suñu borom may ko fan mu gudd lool ak wér tey ji nag dañoo bëgg a def benn taxaw seetlu ci <clears throat> xew-xew yu bari yu nu gis fii yoo xam ne ay actualité la ci wàllu mala yi wala baaxima yi nga xam ne moo di fan yi gis ngeen ci internet bi yaakaar naa ñu bare bare bare répété nañ ko muy mbaam moom nga xam ne dafa sëfoon ay biteel yu ndox dem ba mujj tag tagin woo xam wu jéggi dayo la fan yi it déggaat ngeen ñu ne borom sareet yi am na ci ñaari borom sareet walla ay boromi sareet yu doon xuloo ba kenn ka mujj jam morom ma paaka ñàkk bakkanam loolu lépp dañuy dellu ci jëmmi mala ku ko yor ni nga war a mel boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi sàmm na sa sàmm li tax mu def ko mooy métier la moo xamante ni sunu borom daf laa bëgg tàggat ci yow nga am yërmande maanaam nit ki yor mala maanaam ki koy yor yërmande la ñuy séentu ci moom yërmande bokk na ci li tax nga mën a am yërmande mooy koo xam mënoo wax bu maree naan duna ne la dama a naan bu xiifee du ne la dama xiif bu gëmmantoo du la wax dara yow ci sa xereñu bopp ak ikkam bi yàlla def ci yow mooy tax nga xam ne fas wii dafa mar a naan fas wi dafa sonn xar mi dafa xiif nangam euh, loola yërmade ji ngay am ci bàyyi ma yooyu ba di ko toppatoo ba mën a dàkk bëgg ak kii googu ba dem nañ ci ñi nga xam ne dañuy sàmm mën na noo gis am xar mu ëmb ñu ne la xar mi dina am doom dem ba àgg ci ne la xar mi say seex lay am walla fas wi dana def nangam loola lépp li ñu ci jublu mooy yàgg gën ci yàgg gis ne yow kat ginnaaw yow man ngaa jiite ay xar ak ay fas ay bàyyi ma mën nga leen a yore yow boo jógee ci loolu boo demee boo dee yar nit wala ngay defar nit di nga ko gën a mën ginnaaw nit ki mën nga ko ne toogal mu toog bàyyil mu bàyyi te fas wi mënaloo ko mbaam mi mënaloo ko ko mënoo ko nàngam te danoo bëgg yërmande jooju nga um ëmbal bàyyi ma yi ak noonu nga nekk woon ci bàyyi ma yi moo tax ñu def la boo gisee yonante bi sàmm loolu bokk na ci moo tax bi mu sàmmee ba noppi ci la ko yàlla soo ko ci nit ñi bi mu ñëwee ci nit ñi lu mu wax dana innama ana rahmatul muxtaati yàlla indiwu ma fi lu dut yërmande yërmande ne da ko ëmbal bàyyi ma lépp loo xamante ni lu yonante bi salasal nee na man raxima ruxima nee na ku am yërmande ku yërëme yàlla yërëm la te li yonante bi salasal nee na lépp lu am res wu tooy aajana yërmande yërmande sax soxla na ko kon ngalawaay yow mi yor mbaam yow mu yor fas yow mu yor xar yow mu yor aw bëy ak loo mën a sàmm ci mala xamal ne mala yooyu yàlla moo leen bind te bind gi leen yàlla bind yàlla daa bëgg ñu dund yàlla daf la ko terale yow doomu aadama yi tera nga teraa nga mënta paase am xar nga yafal ko ba mu xar mi suur nga sunu borom daganal la na la rendi nga rendi ko ba noppi lakk ko jëfandikoo sunu borom tàggatal la aw fas xam nga fas ni mu amee doole bu fekkoon ne fas yàlla da cee def nattu tàggatu ko amul tàggat bu mu ko am kenn mënta jariñoo aw fas di ko liggéeyloo aw nag yàlla tàggatal la ko nga yàlla tàggatal la ko ba nga mën di bayloo aw nag giléem ni mu toll ak da doole ji mu am yàlla tàggatal la ko ba giléem gi boo ko waxee mu góor mu góor boo ko nee jógal mu jug yooyu yëpp gaynde yàlla tàggatal la ko ba nga mën a jàpp ci nopp bi te yooyu yëpp bu fekkoon yàlla bàyyi na leen ak seen xatar yàlla di kàttanal leen ba noppi jox leen loo xamante ni lor doomu aadama rek la ñuy def kon ñun ñii di lekk doomu di lekk mala yi mala yi ñooy wëlbatiku diñ lekk waaye heureusement yàlla def na ba tey ñun mala yooyu yëpp dañ leen di jariñoo su yàlla tàggatal nañ leen ba nu nooy ci sunu kanam loolu ñun leen ko waroon a fay yàlla mooy yàlla kat mala yi nga tàggatal ba nu nooy ci sunu wet ba man ñoo ñu man leen a sëf man leen a ni man leen a defloo nooy googu lañu war a am suñu diggante ak yàlla am ko ak diggante ak bàyyi may waaye ñaaw na lool nit di dóor am mbaam ba mbaam mi dagg ñaaw na lool nga dóor aw fas nga di ko xiire di xiire ba maanaam yi mu war a jëfandikoo bëgguma tudd baat yi xañ na benn yoon ma tudd ko ngir nit ñi xam ko jël ay xiir di ko dóor ci xóori xóori fas wala awray fas ba fas wa dagg ba mën a def sax sëyi sax mënu ko loolu ñaaw na ñaaw na ñaaw na aw fas nga koy sëf ba fas wi mën am dara dara loo xamante nii mën dund sax dund gu baax te fas woowu ñu jox la ko tàggatal la nga ciy liggéey di yor sa njaboot ni nga terale fas wi ëllëg yomal xiyaam noonu la la sunu borom di terale ba ci àdduna ni nga terale bàyyi may bi noonu la la sunu borom di terale koo gis mu gën a mën a teral fas te fas xam leen ne fas lislaam xos xeex na ba lislaam dugg Sénégal lislaam bi bu taxawee fas gàcc ngalaama fas giléem yi bu fekkee lislaam taxaw na gàcc ngalaama ñun ñi buñ demee ba tey reyunu nit tëbëskee ko na xam ne ginnaaw yàlla yàlla daf na ko remplacer li bàyyi ma kon mbokk yi nanu doowalaat yërmande ci fas yi ak mala yi su ma waxee fas rek lépp laa jublu képp ku yor am xar ku yor mbaam ku yor ab xaj xaj sax am na foo xam ne lislaam daf ko sole ki nga xam ne yaa ngi yor ak jur di sàmm lislaam may na la nga yar xaj bu lay wattul loolu te xaj kenn sañu koo yar ci sa kër nii rek ngir yar ko noonu rek ngir rafet ak yooyu jullit sañu ko waaye bu fekkee da ngaa am lu muy wattu ci kër gi lislaam may na la pour nga yar ko ci sa kër muy wattul la nangam kon mbokk yi nanu dawalaat suñu xel xam ne ñun ñëpp dañ nii la ëllëg bàyyi ma boobu nga xam ne dafa mbëkkoon ñaari xar yi amoon ni ko sëñ bi waxee ci suñu saxaar ñaari xar yi amoon béjjën mel ni mi am béjjën mel ni mi amu ko mel ni mi mbëkk bu ëllëgee danañ leen woo ñoom ñaar ñooñu laaj ku ci nekk saxal mi ay béjjën mu fayu ñu soog leen a wol ci ngelaw li ñu dem kon mbokk yi nan xam ne teraanga ji nu yàlla defal ngir fonk doomu aadama wala xadd karam naa banni aadama teraanga jooju nan nu yëg ne sunu borom danu ko teralal ci sunu bopp waaye teralal nu ko ci bàyyi ma yi bàyyi ma yi bu dul woon teraanga ju ko sunu borom teral kon sunu borom du ko bind waaye sunu borom daf ko bind ngir terale ko doomu aadama waaye ñu dem ba sunu borom nag la mu waxoon su ma radat naa asfala saafiliina doomu aadama mën naa dem bay saafonteeg malaaka yi waaye mën naa wàcc ba yées bàyyi ma yenn jëfin yi ngay gis nit ñi di ko jëf nag da ngay xam ne nag mbaam yi ñoo leen tane nag wax dëgg si yàlla nag da ngay yëg ne boo gisee fas yi ak xale yi ndaw ñu bañ ñu yor mala yi seeni xel day mel ni xele mala yi lay jël moo tax fas ki ko war a yor borom xel mu màgg la mu rëy mu am xereñ moo war di yar aw fas moo war di yor xar ndax li ngay jaxasool rek loolu day jeexital ci yow tey jeexital ci yow xam nga mbaam moo xam ne mënul ne li nga may sëf diis na mënul ne li nga may def diis na mënul nangam ah loola képp kuy jëfandiku da ngay seet loo xamante ni lu yàlla la nit ki téeméeri bidon nga sëf ko ci menn mbaam loola taxulaa tee tedd tewu la benn bu benn bidon wala ñeenti bidon wala fukk yu mbaam mi àttan nga sëf ko ci boo noppee génn ci àq mbaam mi jël ci li ciy sa àq loolu teraanga joo xamante ni kenn du la dimbali fi ñu toll yor na boromi saret yuy teral saret ya di teral fas yi dañuy dimbali sax ñu yor soldu xoolal li ñekk ci àll bi di bay waxtu wu nu bayee li ñuy bay di ko am fas yi leen koy bayal xam nga ne bu fekkoon ne mag ñu jëkk ña nan daan bayee yor seeni tooba di bay di toob bi di ji léegi aw fas ngay takk mu bayal la lu bari yàllaa ngi yokk sunu teraanga ba léegi àgg nañ ci léegi ay machine la ñuy bayee kon teraanga jooju nu yàlla defal nag lan daan bayee ay mbaam lan daan bayee yooyu yépp fi ñu toll ñi nga xam ne sax danoo am teraanga danoo xam teraangay àq doomu aadama daanaka dootuñu bayeeti nag ndax teraanga ji nga xam ne yàlla jox na ko nag am na ñu teral fas ba fi ñu toll duñ ko bayloo te fas teral na ay nit ñu bari gis ngeen ne course yi ñuy organiser fas yi di ci daw am na ci ñoom ci leen am teraanga am na ci ñoo xamante ni waxuma la teraanga jo waaye teraangay lislaam fas xeex ba lislaam tey ñu gañe ko lislaam di fitti ci àdduna bi loolu doy teral bàyyi ma kon nag mbokk yi lii nuy wax du gudd waaye sëñ Saaliwu daana aaye na xale yi aaye leen mala yi ndax doon leen a jege xale yi mala yi ñuy ànd moo tax ñu yor jikkoy mala jikkoy mala mooy lan mbaam su meree day jéem a wéqi xaj su meree day màtte léegi nag nit ki nga xam ne noonu la taxoo moom bu meree noonu lay def bu meree day jam nit wala mu saaga wala mu def nangam ak yooyu gis ngeen xale yi ndaw yi ci gën a yéeme Touba nag mooy xale bu toll ci jàng alxuraan ñu jël ko yëg teg ko ci sareet nga xam ne mënta téye fas wi mënta téye laab gi xamut sax nu muy waxante client yi nga yeb ko nit ki loolu loraanga la moo tax sëñ bi nañ leen delloo siwaat suñuy xel kenn du ne fas kenn du yor mbaam kenn du ne yor fas kenn du ne yor waaye yooyu ku leen yor teral leen xanaa xamu ne loolu moo gën a rëy ak jaamu yàlla yow yàlla jox la ab bàyyi ma boo xamante mbindeef moo xam dana la mbindeef mi dee ci tedd dee ko teral man ma lay teral am na ñoo xamante ni ci sëriñ si di tër bii dañ lay wax ne la xar mii noo ko terale ëllëg noonu la sa teraanga di toll nga xam ne dangay gis ne xar mi fi muy nekk dañ koy lay ba nit mën faa tëdd fas wi fi muy nekk dañ koy lay ba boo fa demoon da ngay fekk ne nanga mën ngaa tëdd foofu loolu teraanga jooju doomu aadama da ko war a xam di ko def saa boo gisee nag doomu aadama juy teral aw fas teraangaam day yokk soo gis muy teral leneen teraangaande waaye ku leen toroxal suñu borom toroxal la ndax suñu borom mi bind fas am na lu tax mu bind ko suñu borom mi bind melantaan am na te yow li nga war a sant yàlla mooy yàlla mënoon na laa def aw fas ñu lay takk fas woowu nekk nit mu lay takk yàlla mënoon na laa def mbaam mbaam moomu nit ki nekk mbaam nekk fas wi nekk nit ki yow nga nekk mbaam yàlla mënoon na laa def mellentaan foo jaar ñu ne defal nu mu tuddati boo xamal sa baaraam mu dee yàlla mënoon na laa def jaan foo jaar ñu ne dóor leen yàlla def la doomu aadama teraanga jooju nag liy tax mu xam ne teraanga ji ak nit ki teral nañ ko mooy day tedd ci kaw loolu lépp waaye boo demee ba yées ñooñu wàcc ba ñu gën laa tedd kon dara jaru la yàlla teraanga la xolal jën bu fekkoon ne jën maanaam nit ki ba la koo lekk daa dem ba ci biir kon jën kenn du ko jariñoo waaye yàllaa la defal yow tawféex nga mën a yor sa gaal dugg ci biir géej gi mën a yor say oos mën a sànni sa mbaal indi jën jën bu ñu ko doon jaayee dëgg dëgg li muy jar kenn du ko lekk ndax fan koy jëlee du ñëpp fa mën a dem waaye yàlla defal la teraa nga dem mën a jàpp junniy jën dikk jaay ko am xaalis tedd bu subaa nga delluwaat ñëw nangam te yàlla géej ku nekk xam na fi mu toll géej kenn xamu ko waaye yàlla yow xe may la xereñ may la xel ba nga mën a dugg ci géej mën a jàpp rab ba fa nekk indi ko jariñoo ko kon nag mbokk yi nanu dawal suñu xel te yaraat xale yi xale yi ñi toll ci jàng mécc nan jàng mécc ñi toll ci jàng alxuraan nan jàng ñi toll ci jàng xam-xam fas ki koy yor mooy koo xamante ni am nam xel amul lu mu def te métier la ku ko yor teral kenn xeebu ko kenn newut du métier ndax sareeti Tuubaa yi nii nu dajaloo bu dee ci wàllu daayira dañuy dajaloo lu nekk ñu joxe ko ci àddiyee ci kër sëñ bi dañuy dajaloo nekk benn daagaar naa ne kuréel yii fi nekk diggante safoor yeeg yeneen ak yépp ñi ci gën a mànkoo sareet yi amul waaye nañu organiser waat seen bopp dolliwaat seen yar dolliwaat seenu teggin xam ne dëkk bii ku fi teral aw fas sax suñu borom teral la ndax borom dëkk bii kat war na aw fas borom dëkk bii kat amoon naw fas gis ngeen ba léegi fee ñu denc fasam ba ñuy wax ngelamu dañ koy wër di ko siyaare lu tax mooy teral gun teraloon fas wa teral gu sëñ bi teraloon fas ku teral fas woowu ëllëg yomal xiyaam sunu borom dana taxaw teral la dana la teral sa àdduna teral la sa àllaaxira kon mbokk yi daal ñu ngi yemale fii waxtaan wi li nu bëgg a wax mooy tey rawatina nag kàddu gi saa bu jógee tuubaala nii am na kuy léeb benn léeb wala cax naa nit ñi dañ doon dugg àjjana ñuy dugal fas yeeg mbaam yi ñu dugal mbaam yi ba nu àgg nee na bi ñu leen di dugal ñu di leen wommat yóbbu leen àjjana ñu leen mbaa gone Touba yi nekkunu bi lu tax ñu ne nekkunu bi mooy sonal gi ñu leen di sonal xaw ma dëgg la wala du dëgg waaye bu fekkee noonu la demee gone Touba yi war na noo seetaan seen bopp rawatina ñuy dawal sareet ak i fas ak mbaam ñu ngi sant ñëpp di gërëm lii nag jubluwuñ ci dara lu dul ñu gën a wormalaat bàyyi ma gën leen a fonk fii ñu toll de jàpp naa ne ñun ñëpp ñii tëbaski ku ci nekk xar mu rafet mun teral yar ko yarin wu rafet nga bëgg kiy jënd aw fas fas wu baax wu rafet wu suur la bëgg kiy jënd uh, fas wu mu bayee fas wu mel noonu kiy jënd mbaam mbaam mu mel noonu la bëgg kon lu nu teralut kenn soxlawu ko kon nan teralaat kii bàyyi ma yooyu nag suñu borom da koy joxale ci sunu boo kaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm na moo nekkoon ci caméra bi ki nga xam ne mooy montage bi Cheikh Gueye ñu sant mbokk yëpp soxna màggat ñu doon réaliser émission bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah